Youssou Ndour ak euh, Patrice Patrice Evra. effectivement Patrice Evra le franco-sénégalais bi nga xamante ni une fierté def fële ca France nekk euh, actuellement à Marseille George Juventus dafa rencontré ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour actuellement mu nekk moom tamit tournée fële ca Marseille. Mhm. daje na fa moom ñoom ñaar presse interposé la woon waxoon naa ko sànq maa ngi ko expliqué ñoom ñaar ku ci nekk di euh, magnifier liggéeyu liggéeyu morom surtout sa engagement mën nañu seetaan bi te ñëw. qu'on a raconté par presse interposée. Patrick et moi. C'est vrai. J'adore ce garçon pour son engagement, pour son talent. Et j'ai vu récemment son cœur. par ce reportage. Et merci d'être venu pour le concert. Non, mais c'était ah. magnifique. Merci. Ah. la légende du Sundur. Et comme on dit tout le temps, I love this game. Hey, eh, voilà donc ce fut une belle rencontre entre deux grands deux icônes euh, mu Youssou Ndour ak euh, Patrice euh, Evra voilà ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga loo yéene Afrique quand surtout surtout Youssou Ndour Patrice Evra waa Thiès la. defoon na fi benn interview observateur mu expliqué lu nga xamante ne Patrice Evra noonu la fonkee ak Patrice Evra surtout ni muy nekkee France surtout ni muy représenté Sénégal ak yenn action yi nga xam ni ngi koy def. Mhm. Patrice Evra tamit pareil moom la ñuy wax Patrice Patrice Evra dafa dafa bëri dafa dafa dafa am wall bu rëy fii nii Sénégal euh, euh, mhm. euh, voilà donc une belle rencontre entre moom ak Youssou Ndour Youssou Ndour que nous félicitons mhm. ci Africa Rek Tour bi Marseille Amsterdam dëkk yu mag yëpp def na fa yu rëy mu ngi préparé itam Marrakech vers le vers huit ak le neuf bëggoon nañu dem participer ci bokk ci mais bon malheureusement ñun amuñu jot moo tax demuñu gunge ko mais nous sommes au courant <laughs> nous sommes, de, nous courant.